kanam tuuti nga xam lépp. gën a gaaw gën a neex. man ma kii mu am. amalu ma loxo démb. daaw de Sadio Diouf. déggu ma loxo. gën a gaaw gën a neex. la nee na du ko may dara. fëgal man. nee na kii rakkam du may sa boy bi dara. xaaral ma ñëw jox sa wàll. fëgal la nee na rakkam du may boy bi dara. waaw man Moussa Ndoye sama rakk du may dara te koy daan si kàttanu yàlla ah. waaw. waxee daa mel ni. daa mel ni waxtaan bi lu mujj mujj ci Moussa Ndoye la ba. dañ koy daan non non loolu du ma ak moom. xalaatu ko de. du ma naa ni loxo yii. yaa yéenoo ma ko. billaahi wallaahi wa taala yi. yéenoo ma ko su ma ko dóor bu mu tëdd kon ma bàyyi. bëgg la bu bu dafa bu du ma ak moom bu dafa fo dinaa ko dóor bu mu tëdd samay tànk. bëgg la billaahi laa la wax. te tey tey la lépp di leer li ñu ko war a def tey lay leer. Ah. ma ne ñëw fu ma teg sama tànk fu leer di nga dawaat ñëw si man ne Moussa loo waxoon dafa am fu ma teg sama tànk déggu ma lu wax de après ngay xam. booy yi ñoo lay teel dafa jeex ni fi lu kenn du los maa ko wax. dem na caatu yaraax moom vite fait la def. tey na bien fait mooy tey. vite fait bien